bu ñuy ñaax joueurs yi dañuy ñaaxaale coach bi ñëpp la ñuy ñaax euh, ñëpp la ñuy ñaax vraiment euh, alors tey ji 22 euh, novembre bokk na ci li ñuy fàttaliku atum 2006 ba ñu tegee loxo Bara Tall nekk PDG bu société BTP boobu di Jean Lefebvre Sénégal toppeeku ko faux et usage de faux escroquerie état bi moom moo ko doon tuumaal loolu lu toll ci juróom-ñetti milliards ci sunuy koppar loolu la ñuy fàttaliku ak leneen ñu dellu si ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre 2021 ci Sénégal coalition ku jég politique gi di Yewwi Askan Wi amal ab mitin bu yaatu ci dibeer ja ci ndakaaru ngir nag fësal fukk ak juróom-ñeenti candidat yu fukk juróom-ñeenti commune yu ndakaaru waroon na nag wane seen bopp ci élection municipale ak départementale yi ñu jàppoon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre 2020 euh, ci Afrique xel yépp dem ci bis bi ñu falee Barack Obama njiitu réew bu Amérique mu nekkoon ci atum 2009 ci novembre 2020 boobu euh, ci la daal di génnee nag ay téere ñu duppee leen une terre euh, promise waaye nag lañu ci seetlu rek mooy ñu bari yaakaaroon nañu ci Afrique ci tom boobu nag dina ci bàyyi xel bu baax dëxëñ ci mbiru Afrique waaye ba ñu demee ba ca càppaandaw ga dafa mel ni sax Afrique dana ko soofantal ci loolee Barack Obama génne woon. Ratko Mladic ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre 2017 ci lañu ko tëj nag giiru dundam kaso ndax crime de guerre crime contre l'humanité maanaam faat ay bakkan ci jamonoy guerre moom moomu sax nag ñu daan woowee le boucher des Balkans. ñuy taxaw tey. ci jàppug baarataal PDG bu entreprise BTP Jean Lefebvre Sénégal mu ngi nekkoon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre 2006 euh, moom moomu nag ñu doon ko toppee mbirum luubal ak it njuuj njaaj ñu ne nag koppar ya xayma woon nañ ko ci juróom-ñetti milliards ci suñu xaalis gannaaw bi ñu ngi ko bàyyi ñaar fukki fan ci weeru mai 2011 euh, gannaaw ñeenti at yu ñu ko doon topp Moussa Diaw nekkoon coordonnateur national bu mouvement yamale bu baarataal mooy dellusiwaat ci jafe-jafe yooyu baarataal dundoon moom homme dafeex ba. novembre 2006 boobu dafa nekkoon ci contexte xeex politique bu amoon diggante le président Abdoulaye wadd et son ancien premier ministre Idrissa Seck donc euh, le prétexte aussi moo doon les chantiers de Thiès ba tax na Baratal qui était aussi un des entrepreneurs euh, on a voulu l'utiliser pour enfoncer quelqu'un et je pense que mus na ko wax wax na ko ñëpp dégg ko il n'a pas accepté ça et quand il l'a pas accepté euh, ci la nguur gi def lépp tëj ko kaso mu nekkoon nag dëgg-dëgg lu metti lu metti woon torop torop ci moom ci waa këram ci soxnaam ci njabootam ci ay doomam ay mbokkam ay waajuram mu metti lool ay frèram mu metti lool ci ñoom ak ay sëram ak ñi nga xamante ni sax ay xaritam lañu dëkkandoo ak moom ak ñi nga xamante ni ay euh, ay nit la yoo xamante dañuy liggéey euh, ci fa leen ci entreprise yi mu sancoon ndax boobu entreprise yu bari sanc na ko muy dox mais xeex boobu arrêté na entreprise yooyu c'était extrêmement douloureux épisode politique la boo xamante ni c'était très très douloureux donc euh, ci diggante Wade ak euh, président Wade ak euh, premier ministre Idrissa Seck donc euh, vraiment xeex boobu xeex nañ ci gouvernement bi boobu régime boobu xeex na ci ay nit ñu bari xeex ci ay politique xeex ci ñu dul politique xeex ci ay entrepreneur xeex ci baara nag moom def ci gënoon a fës parce que xam naa dañu yaakaaroon nii ci moom rek la ñu mën a jaar pour euh, dugal Idrissa Seck donc euh, ils lui ont forcé la main il a refusé ñu tëj ko métti na trop nag. on est en présence d'une dictature on est en train de d'assister à la violence d'un système qui n'a pas commencé aujourd'hui aujourd'hui c'est ce, la partie la plus la violence que nous voyons la violence c'est pas seulement des de grandes lacrymogènes c'est pas des balles en caoutchouc qu'on sur les gens la violence est d'abord merci beaucoup euh, Fatou Kiné Deme Chérif ni ñu ko déggee ci euh, témoignage bi ñu bari dañoo jàppoon ni euh, Idrissa Seck lañ doon ut ñu jaaralee ko ci moom Baratal yëf yi dem ba jël benn dimension politique ndax par la suite sax moom ci boppam dafa impliqué wu ci politique ak mouvement boobu di yamale bokkoon ci m également laata président Abdoulaye Wade di fi jóge. non comme presque beaucoup de dossiers politico-judiciaires parce que moom ci affaire Sandiara de Thiès la ñu lu toll kon ci 11,5 milliards. milliards de francs CFA yoo xamante ni ko doon toppee donc Idrissa Seck chantier Thiès yi ne woon eggul vous vous rappelez bi mu démissionné en 2004 Macky Sall remplacé ko ba nin koy yóbboo kaso et cetera ñii ci nekkoon yëpp même ñoom Salif Ba c'était pas seulement ki nga xamante ni moom mooy Bara Tall ak mm-hmm. yeneen bien sûr ñoo xamante ni tuddoon na leen ci mm-hmm. ban yóbbu leen ci kaso moom comme à l'image de Karim Wade rek du moom kese demoon parce que après gis nga ko ñi ne woon moom lay liggéey wala ñun jot na jege nañ leen ñoom it il faut ñu jàpp leen mm-hmm. euh, yóbbu leen mën nag moom mooy le drame quand même ci li nga xamante ni mooy situation politique fii ci Sénégal mu nekkoon du gâchis parce que Bara Tall mi ngi fi doon diriger benn société di yëngatu ci wàllu BTP nekkoon sax référence a ah, ci Sénégal muy Jean Lefebvre ci defar ay tali bi ni mel bu ngeen fàttalikoo sax axe Malick Sy ci Padoa bi ñoom ñoo ko defaroon ci autoroute bi après gis nga ko ay nasaraan aussi ñu doon xëccoog ci wàllu woowu ñoom it jël marché bi mhm. Jean Lefebvre presque dee na Sénégal ci doon liggéeyee daanaka ñu ci bëri ñàkk seen liggéey amoon na jafe-jafe sax même tali bi doon defar diggante Fatick ak mhm. li nga xamante ne jàpp ne kam Sénégal la nekkoon nekk doomu Sénégal te Sénégal ay investisseurs am da nga leen di war a défendre même bu dee mbiram la moo parce que mm-hmm. mm-hmm. a disparu dans ko gisee ak surtout mm-hmm. bi mu fi créé yamale tamit après Macky Sall bi ñëwee déggaatuñ ko on l'entend plus donc euh, on ne comprend pas c'est ça il a disparu gisatuñ ko ci dara déggatuñ ko Marcel depuis ba euh, président Macky accédé au pouvoir ba léegi déggatuñ ko daanaka Euh, balaa loolu en fait en 2011 déjà euh, parquet bi mu ngi doon euh, laaj ngir ñu tëj ko lu tolloon ci je pense juróomi atu kaso suma jumul cinq ans c'est ça mais par la suite c'est vrai depuis lors on on l'entend on l'entend plus trop c'est un petit peu l'histoire qui se répète ci ci wàllu euh, li nga xam ne moom mooy dossier politico judiciaire ndaxte lu bëri li ñu comprendre lul woon mooy euh, yeneen 37 sociétés yoo xamante ne dañoo nekkoon tamit ci mbir bi euh, ñoom ñëpp kenn après dañu mbir bi fu mu dafa jaare foofu kenn kenn xamutul fan la fan la mu mais n'empêche ñu continuer woon di di topp ki di ki di ki ki di ki di ki di baarataal donc en même temps haute cour de justice tamit joxe woon non lieu li nga xamante ne moom mooy le cas a Seck on s'attendait à ce Euh, moom tamit mu bénéficier ci euh, donc euh, voilà on il serait intéressant ñu ñu jéem a xool jamono ji ci ci lan lay yëngu voilà. c'est ça mm-hmm. merci beaucoup Marcel alors léegi dañuy jàll ci xibaar yi ñu tënk ko ànd ceegi bu Diouf.